wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina muhammadin ibn abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi wa sallama tasliman kathiran mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala ci ay xéewalam yu biir ak yu bitti ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di am mbégte bu baax a baax ci dellu siwaat ak yéen ci seen émission jataayu soxna yi te mooy soxna yi nga xam ne nii ñoo ñooy soxna yi gën a ràññeeku ci yoonu murit waaye soxna yi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci keppaaruk cheikhul xadim radiallahu anhu ginnaaw balaa ñoo dugg ci lépp rek comme niñ ko baaxoo defee ñi nuyu bu baax a baax ak a ziyaar cheikh mouhamadul muntaqa mbàkke di ko dollee ñaanal rek comme liñ koy ñaanal bu baax liñ koy ñaanal bis bu set yàlla yàggal ko fi ànd ak wér ak kàttan ba naal yëpp yàlla sottal ko ci jàmm euh, comme ni ngeen ko xamee woon euh, seen jataay bi nga xam ne nii moom moo weesu euh, ñi ngi doon fàttalante ak yéen ci njëlbeenug lislaam ak taxawaayu soxna yi bu am solo bi nga xam ne nii moom la soxna yi doon taxawee ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, waxtaane nañ seen taxawaay ci anam yu wuute lu ci mel ne ci euh, njëkk gi njëkk dugg ci diine ji waaye itam njëkk gi njëkk joxe seen mbakkan ci yoonu lislaam seen taxawaay ci xam-xam seen taxawaay ci woote bi seen taxawaay ci joxe euh, ay xalaat yu am solo yoo xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa ko doon jëfe di ca di ca gis njariñ comme ni ñu joxe woon ci Sayyidatuna Umu Salama ak yeneen ak yeneen kon tey dañuy daal di dugg ci thème bi dëgg-dëgg euh, war waxtaane soxna soo xam ne nii euh, soxna su yéeme la soxna soo xam ne euh, buñ dee jàng siiraam dañ ci jële ay njëriñ yu bare bare bari yoo xam ne ni kenn mënu koo takk soxna soo xam ne tey yoonu murit li mu am lépp daanaka mën nañ ne ci liggéeyam ci waajtaayam gu waajaloon li yëpp ci la bokk kooku mooy euh, Sayda Aïcha Waalo Mbàkke radiallahu anha mooy soxna Asta Waalo mi nga xam ne nii moom moo meññi soxna jaaratullahi Buso mi nga xam ne moom mooy waajur wu jigéenu Sëriñ Tuuba radiallahu anhu kon dinañ waxtaane soxna Asta Waalo kan mooy soxna Asta Waalo maanaam euh, aw askanam dinañ waxtaane am njàngam akum njàngaleem taxawaayam ci joxe xam-xam ak tasaare ko liggéey bu mag bi nga xam ne nii moom la def ba yàlla ba xëy wuy ji dëkkaaleeg suñ borom waaye itam ginnaaw yépp dinañ indi li nga xam ne nii moo ci solo lépp bu ñu waxtaane siira mag ñi te mooy euh, ay leçon ak i jàngat yi nga xam ne nii moom la def ci dunduk soxna Aïcha Walo radiallahu anha ba xamee ne Euh, bépp jullit du ma wax sax murit waaye jullit góor ak bu jigéen ñoo ci yem rawatina ñu jigéen ñi dinañ ko ci mën a roy te lépp doon ay njëriñ lépp doon maanaam lu baax kon euh, soxna Asta Waalo comme niñ ko xamee rek moom jolof la bàyyi ko jolof kon fa la nekkoon maanaam ci baay ak ci yaay ndax euh, yaayam mi bokk ci Eh, maanaam eh, askanu ñang bi nekk ci Afe Jolof eh, bu dee baayam wàlluk baayam moom ci maam la jóge kon moom jolof jolof la waajuram mu góor mi ngi tudd sëriñ Ahmadu Soxna Buso maanaam sëriñ Ahmadu Mbàkke waaye dañ ko doon dàkkantelee ci waajuram bu jigéen moo tax ñu naan ko sëriñ Ahmadu Soxna Buso Euh, doomi maam maaram la moom suñu Ahmad soxna Bousso moom euh, ñu ngi ko joxoon soxna suñu wax ndumbe ñang te gënoon a siiw ci ndumbe daado sànqe nga xam ne moom tamit ci waa jolof la euh, ci la ame soxna astawaal wax radiallahu anha soxna astawaal moomu nag comme ni ñu ko waxee jolof la gane àdduna waaye tamit fa la nekkoon maanaam diir bu yàgg a yàgg ki nga xam ne ni moom moo ko doon denc ki ko yoroon moom la tuddee sëriñ ma buso awa mbaay maanaam sëriñ ma buso ñu ko doon dàkk ñu ko doon dàkkantalee ci waajuramu jigéen bi nga xam ne moom mooy awa mbaay di doomi ma tabara buso di doomi xammaat aale buso te moom xammaat moom moom mooy euh, maami buso bay wax nañ ne moom xammaat aale moom mi ngi dëkkoon ci mi ngi dëkkoon fuuta waaye fa la jugee euh, doon wër benn mbokkam bu ñuy wax Sayer Aale boo xam ne moo réeroon bu demee ba àgg Jolof nag te mi ngi àndoon ak ak juróom euh, guddi euh, maanaam guddi fekk ko ci yoon mu bëgg a sàmmaale juróom googu mu ne na fanaan ba bat set te boobu mi ngi ko fekk Jolof ginnaaw loolu nee nañ mu maanaam ay sàmbaabooy yoo xam ne ni gisoon nañ ko xam naan bëggoon a dogalee jur géeg yooyu noonu bi mu xamee loolu te borom basiira la woon ñu ne dafa def benn rëdd ci kanamam bi rëddee rëdd woo ci kanamam rek euh, mel ne euh, safara dafa tàkk diggante boobu nga xam ne mënuñu woon a jege biñ gisee loolu nag ci lañ dem ci buur bi jolof buur bi xam ne moo nekkoon buurub jolof daane ko am na gan gu yéeme goo xam ne ni wàcc na ci dëkk bi kooku de bay bañ laa raw ndax xam naa ne moom nitu yàlla la ci loolu ci la woolu euh, sëriñ Xammaat moomu euh, mu wax ko li ko tax jóg mu ne ko léegi bàyyil man dinaa la wëral sa mbokk mi nga xam ne moom moom ngay wër ndax xëy na man maa la ëpp ay matuwaay waaye ñu ne mu toog diggante gu gudd a euh, gudd gisu ko ci la ci la ne ko xam naa ne gisuñu ko ci noonu ci la ko waxee pour mu sàkku ci moom pour mu jox ko doomam daal mu denc doomam waaye moom daal bëggul woon jaxasook maanaam li ci àdduna yi moom bëggoon na daal euh, maanaam aw askanam lépp doon askani diine ci la ko tamit euh, daal di junjee mu dem ci beneen dëkk buñ dendal boo xam ne ñoom maanaam euh, niti diine lañ ñu ta sant siise ci lañu ci la ci lañ ci la jëlee ku ñu tuddee soxna xujja siise mu am ca sëriñ ma tabara buso ñu ne sëriñ ma tabara buso tamit ba demee Euh, maanaam toll ci denc soxna tamit ñu yebal ko fi ñu tuddee maanaam dëkk bu boo xam ne nañu sant mbaay ñoo dëkk foofu ci la jëlee soxna awa mbaay ci la amee sëriñ ma buso awa mbaay mi nga xam ne nii moom moo yoroon soxna Aïcha Waalo radiallahu anha léegi soxna Aïcha Waalo moomu moom meññi soxna mati buso mi nga xam ne ni moo doonoon ab taawam sëriñ busoo bi mi nga xam ne ni moom la ñëpp xam soxna jaaratullaahi buso eh, radiallahu anha at tamit ku ñuy wax soxna kujja buso kon ci wàllu askanam eh, noonu lafa fa noonu la fa demee eh, ni ki nga xamee ne soxna Aïcha Walo ci wàllug waajuram mu góor setu maam maaram la comme niñ ko waxee waaye itam ci wàllu waajuram mu jigéen moom day dellu ci sëriñ Xamaat Ali mi ñu waxoon léegi ci mbusoo begi ndax moom waajuram bu góor nee nañ mi ngi tudd sëriñ Ahmadou Mbacke te gën a siwee sëriñ Ahmad Soxna Bousso Soxna Bousso moomu doomi sëriñ Xammaatan li mi ñuy wax léegi la kon jaxasoo euh, diggante Mbacke ak Bousso dafa yàgg lool ci ci taarix kon euh, loolu mooy maanaam askanu soxna <coughs> jaaratu soxna sawaalu na sawaalu euh, bi mu nekkee tout tànk ci zahir jàng la tàmbali am njàngam akub yaram ci loxoy waajuram sëriñ Ahmad Soxna Bousso mi nga xam ne moom mooy doomi maam maaram dañoo wax ne maam maaram dafa yoroon ay daara yu baree bari di jàngale ak ay yare daara yoo xam ne gën a rëy ci jamono jooju mu maam maaram moo ko yoroon uh, waaye itam uh, njàngale moom mu doon def ak yaram bi da ko doon njëkkee ci uh, maanaam njabootu boppam ngir jëfee aaya bi nga xam ne moom la yàlla di wax wa andir ashirataka al aqrabin moom la waxoon yonent bi sallallahu wa sallam ba mu ko yónnee ba pare avant mu koy digal pour mu jottali eh, ñi nga xam ne ni ñoo gën a sori dana ko na nga tàmbali sa waa kër wa andir ashirataka al aqrabin xuppal sa waa kër yi la gën a jege ba pare door dem ci ñooñu moo tax eh, maam maaram noonu la ko doon defee eh, day jàngal ak njabootam njabootam googu tamit continuer di jàngalewaat kon suñu Ahmad Soxna Bousso moom nga xam ne mooy waajur soxna ak sawaalo moom moo ko jàngal ba mu mokkal alquran waaye tam jàngal ko xam-xam ba mu géeju lool ci fànni xam-xam yu baree baree bare euh, dañuy wax ne maam daanaka euh, taal yu bari ci ci réew mi moom moo ko taal maanaam nit ñu baax ñu bari nekk ci réew mi moom moo leen meññ ndax ni mu doon defee ni mu doon def mooy euh, ku mu jàngal ba nga mokkal alquran ba nga géeju ci xam-xam dalay sampaloo sampaloo daara ngay jàngale mu jël mu jël doomam jox la moo tax moo waral daanaka euh, bu ñu xoolee maanaam euh, famille diine yu bari ci moom la ñu ko moom maam maaram moom ku ne xamoon ne dafa nekkoon borom xam-xam nekkoon qaadi àttekat nekkoon mufti nekkoon maanaam borom xam-xam bu mag ci ay jamonoom euh, soxna Asta Waalo ginnaaw bi mu xamee ne waajuram jàngal na ko alquran jàngal ko xam-xam ba mu géeju ci comme niñ ko waxee dafa nekkoon ku ku amoon ambition ku amoon gëm-gëm xam li bëgg waaye tam xam ne dafa am responsabilité bu gàllu ci kawam ginnaaw bi mu jëlee xam-xam ba pare ndax dafa xam ne maanaam euh, tes diine ji di lislaam di ko jaarale ci xam-xam jàng jàngale maanaam warteef la ci bépp julit muy góor ak jigéen yonent bi sallallahu dafa wax ne balligu anni walaw aaya na ngeen jottali ci man donte ne benn aaya la loolu la gëmoon moom moo tax da fa amoon ay daar yu baree bëri daan jàngale ah, góor ñi ak jigéen ñi ñëpp ndax dafa xamoon ne loolu warteef la ci ñëpp te itam ah, ni ki nga xam ne ni góor bu defee ah, maanaam lu baax yàlla da koy fayee waaye bu defee safaan ba tamit yàlla fayee ko noonu moo jigéen ñoo ci yem képp te loolu dinañ ci ñëw xam naa ci fin bi <clears throat> ci alquran karim dañ koy gis bu baax a baax ni ki nga xamee ne góor ak jigéen ñoo yem képp ci wàllu jaamu yàlla wàllu maanaam euh, taxaw ngir <clears throat> wuutu yàlla ci kaw suuf innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat wal qaanitina wal qaanitaat was saadiqina was saadiqaat ba aaya ba jeex nu ko yàlla tëjee aadda allahu lahum maghfiratan wa ajran aziman jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi way gëm ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi rafetalkat yi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi jaamukati yàlla yu góor yu jigéen ñi ba aaya ba jeex lam ko tëjee mooy yàlla de euh, dig na leen njéggal ak maanaam euh, pay gu mag sa gu màgg kon ñoo ci bokk yam ak yeneen yeneen aaya yoo xam ne mënuñ koo takk man amila salihan min dakarin aw untha waxu wa mu huwa muminun fala nuxiyannahu xayaatan tayiba képp koo xam ne ni jëf nga lu baax muy góor wala muy jigéen te ba koy ba koy def doon ab jullit bu gëm yàlla am ca yéene yàlla ne danañ ko dund loo dund gu baax gu teey te dinañ ko fay fay goo xam ne nii maanaam du dagg ngir maanaam jëf ju baax ji nga xam ne ni moom la doon def kon loolu dafa leer bu baax a baax euh, ginnaaw bi nga xamee ne borom këram bàyyi na fi daanaka moom dafa doon woon daara yi nga xam ne moom la yoroon mu doonoon lu jafe-jafe ci jamono jooju rawatina ci soxna euh, daan jàngale daan jàngale di yare euh, nee nañ daanaka maanaam place bu mu wàcc woon bu nekk rek daan na fa sos lu tolloog fukki daara ak ñaar ba fukki daara ak ñett moom soxna Asta Waalo euh, ngir maanaam defar nit ñi te nit ki boo ko dee defar mi ngi tàmbale ci xamal ko xamal ko diineem xamal ko digganteem ak boroomam xamal ko digganteem ak moroomam nu muy dundee nu muy jëflante nga xam ne loolu moom moo koy mm, permettre mu mu dëggal li nga xam ne ni moom moo taxoon yàlla subhanahu wa taala bind ko te mooy jaamu yàlla wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee ci alquran binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma kon ci xam-xam ci la doomu aadama mën a jaamoo yàlla jaamu yàlla goo xam ne nii gu lay doon euh, wax nañ ne ci noonu la nekkee jolof diir bu yàgg ci njàng meeg jàngalem ba euh, Maba Jaxu ñëw Saalum Maba Jaxu Ba comme ko xamee buur boobu euh, bi mu ñëwee Saalum ndax dafa gis ne Saalum benn dafa nekk gox boo xam ne nii lislaam te saaroowu fa Euh, bëri na ak doo bëri ay mbir te moom mu gëmoon li euh, bëggoon a jëfe aay bi yàlla subhanahu wa taala di wax ci jihaad ne dina jahadu fii na la naa ñi nga xam ne daal dañuy jihaad ci suñ yoon maanaam yoonu yàlla yàlla ne dinaa leen gindi jëma leen ci yoonu baax wa inna allah la maal muhsinin yàlla mi ngi ànd ak way rafetali loolu la Maba Jaxu Ba gëmoon moo taxoon mu jóg soldat la mbuti saalum ngir tasaare foofu lislaam ngir def li nga xam ne nii moom mooy jihaad bi mu defee noonu nag dafa bëggoon maanaam euh, sëriñ si nga xam ne ñoo nekkoon jolof ñu ànd ak moom ngir dimbale ko ci loolu ci la wax ak sëriñ bu soobe sëriñ bu soobe nga xam ne doomi soxna jaara la te mooy mag ci euh, doomi soxna astawaalo di mag ci soxna jaara moom la Maba Diakhou Ba wax euh, sako ci moom loolu noonu ngir ñu ànd ak moom jógee Jolof dem Saalum bi mu waxee loolu nag <coughs> sëñ bu soobee daal di d'accord ci loolu pare pour ànd ak moom jixaat gannaaw moom moo nekkoon moo magoon ci doomi euh, soxna astawaale maanaam ci góor soxna Mati Bousso moom après sëñ bu soobee mu sàkku ci waajurum bu jigéen bi soxna astawaale loolu mu nangul ko loolu tamit kon ñu daal di ànd daal di jógee Jolof dem Saalum biñ demee noonu sëñ bu soobee ànd ak euh, Maba Jaxu Ba ci jihaad bi soxna Asta Waalo moom comme niñ ko waxee rek place bu dem bu nekk la mu fay njëkk a def mooy maanaam mu sos fa daara àggale mission bi nga xam ne ni moom la gàlloo mooy jàng ak jàngale ak yare kon euh, dem nañ euh, Saalum wàcc ci dëkk bu ñu wax Afe Murit foofu lañ wàcce sëriñ bu soobe soxna Asta Waalo ak sëriñ Saa Buso nga xam ne ni moo moo nekk euh, mbokk ci sëriñ Buso bi euh, foofu lañ nekk ci diir bu xaw a euh, bu xaw a gudd ba Maba Jaxu Ba jël sëriñ Mamour Anta Sali xam mooy waajal sëriñ Tuubaa yóbbu Poroxaan ci noonu sëriñ Buso bi aussi ak continuer ak Maba Jaxu Ba ci ci jihaad ci maanaam ci jihaad ci yoonu yàlla Euh, en même temps soxna Asta moom nekk ci daara ji di jàngale ak yara ci noonu nag ci la ñu wax ne benn buur bu ñuy wax buur bi nga xam ne moo nekkoon buuru Saalum ñu koy wax Gédel Mbóoj nga xam ne moom da daan dem ci soxna Asta Walo di sàkku ci moom ñaan euh, lu njëkk mu nekk buur daan dem ci soxna si di sàkku ci moom pour mu ñaanal ko mu koy ñaanal ginnaaw ba mu ko ñaanalee ba yàlla dogal mu nekk buur nag mu bëgg koo delloo njekk loolu daane sàkku ci moom pour mu jugee maanaam affaire murid fi mu nekkoon noonu dëkk boobu pour ñëw jege ko ci dëkk bu ñu wax korki wala kurki ndax dana ko ginnaaw sëñ bu soobee day faral di génn te ndog mente yeeg maanaam euh, saay-saay si bari ci dëkk bi bugguma ñu attaqué la wala yu demee noonu kon da ngay ñëw fii jege ma ma di la surveiller di la aaraale waaye soxna Sawaalo maanaam daatu daat koy daal di joxe ngànt ndax kat wax ne man moom njàng njàng diine ak jàngale rek moom moo ma ñor kon nag bëgguma di jooñ buur yi ak ak ak ceddo yi wala yu demee noonu ci la ko wax ne kon kon sàkkuwaat ci moom beneen càku def mooy kon nga xaw maa sori tuuti même boo ñëwut ci biir dëkk bi tamit nga xaw maa sori lu toll ne 3 kilomètres ba 4 kilomètres nga xam ne dinaa mën a surveiller waale bu baax a baax ci noonu rek ci la ko ci la tuxusee ci dëkk bu ñuy wax naawel kon loolu moo indi euh, maanaam soxna sawalo soxna sawaalu Mbàkke dëkk fi ñu wax naawel lépp ci saalum la moo dëkk bi buur bi dëkk sorewuñ kon comme ni ñu waxee woon ba tey moom mooy répété waat ñëw na naawel indaale ay daaraam euh, di continuer li nga xam ne ni ci la ci la ci la nekkoon euh, wax nañ ne soxna sawaalo ku ragaloon yàlla la woon maanaam ragal yàlla gi ak maanaam dëgër gi euh, doon na feeñ ci yu baree bare ba dañuy wax ne sax ak colam sax daanaka boo ko gisee doo mën a xam ba xam góor la ak jigéen ndax ragal yàlla gu gu kii ak tamit ni nga xamee maanaam noonu la doon tasee xam-xam bi ci góor ñi ak ci jigéen ñi te loolu mi ngi ko jëlee ci turandoom waaw soxna Aïcha radiallahu anha euh, nga xam ne euh, xam nañ ne li ëpp ci masala yi nga xam ne ni moom moo ñu yitteel ci suñu diine saxaaba yi nee nañ comme niñ koy waxee woon ci jataay bi weesu lu ñu mës a ci suñu diine rek bu ñu demee ci Aïcha radiallahu anha lënt bu ñu amul rek day daal di dañ kon day ne loolu maanaam doon na ko ci turandoom suñu Aïcha radiallahu anha kon soxna Asta Walo euh, noonu la doon solo euh, waaye itam euh, ngir sàmm gi nga xam ne sàmm na ko ak li yàlla subhanahu wa taala di digle góor ak jigéen di bañ a jaxasoo di dàndante euh, loolu la doon jëfe bu baax a baax doon ko bàyyi xel ci njàngale gi doon jàngalee góor ñi moo taxoon dañuy wax doon wax ne da teg saatir maanaam da daan teg loo xam ne ni mooy dox diggam ak góor ñi nga xam ne dina leen jàngal waaye ñoom duñ ko duñ ko gis kon loolu tamit bokk na ci yi nga xam ne day wane ne soxna Asta Walo sàmm la woon ku ragaloon suñ borom la woon subhanahu wa taala ci lu feeñ ak ci lu nëbbu ndax loolu mooy taqwa maanaam ragal yàlla dëgg-dëgg mooy euh, boo nekkee ci mbooloo loo sañut def boo nekkee wéet yow kese tamit doo ko def loolu mooy taqwallahi fi sirr wal alan te mooy martabatul ihsan an taabudallaha ka annaka taraahu fa fa innahu yaraaka nga jaamu yàlla mel na yaa ngi koy gis ndax kat boo ko gisul tamit moom moo ngi lay gis waaye tamit muraqabatullahi fi sirr wal alaniya di bàyyi xel yàlla ci lu nëbbu ak ci lu feeñ ndax yàlla euh, laa yaxzubu anhu mithqaalu dara du euh, maanaam du nëbbu ci moom lu feeñ ak lu nëbbu loolu ci ñun la ñun doomu aadama waaye yàlla amul luy nëbbu ci moom kon loolu soxna Asta Waalo da ko doon bàyyi xel bu baaxa a baax waaye tam ku jeexoon la ci yàlla subhanahu wa taala bëgg yàlla ba jeex ci takk nga xam ne lenn du suñ borom rek maanaam doy ko woon ci jaamu yàlla euh, ci euh, matale li nga xam ne ni moo war ci diggam ak suñu borom subhanahu wa taala waaye itam di jaamu yàlla ci jaamam ñi ndax euh, yàlla subhanahu wa taala amul lenn lu koy gën a bégloo lu ëpp nga jaamu ya nga koy jaamu ci jaamam ji ci jaamam ñi comme ni ko yonent bi sallallahu waxee ci xadis bu gudd a gudd naan man yassara ala mu'sirin yassara allahu alayhi fi dunya wal axira wa man uh, man farraja an muminin kurbatan min kurabi dunia nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wa man yassara ala mucsirin yassara allahu alayhi fi dunia wal axira wa man satara musliman satara allahu alayhi fi dunia wal axira wallahu fi awni al abdi ma dama al abdu fi awni axihi comme ni mu nekkee ci uh, arbauna nawawiya maanaam képp koo xam ne ni wuññi na njàqare benn njàqare ci àdduna ñeel moroomu jullitam yàlla subhanahu wa taala dina ko wuññil njàqare yowmal qiyaam waaye tamit képp ku yombalal mbokkum jullit moo xam ne nekkoon na ci jafe-jafe bu génn ko ci jafe-jafe yooya yàlla subhanahu wa taala dina la yombalal say mbir ci àdduna ak àllaaxira waaye képp koo xam ne nii sutural nga jullit yàlla dina la suturaal àdduna ak àllaaxira te yàlla mi di dimbale doomu aadama li feek moom doomu aadama mi ngi nekk dimbale moroomam kon loolu dafa nekk loo am am solo loo xam ne nii Euh, soxna Asta Walo euh, ràññeeku woon na ci lool ci maanaam anam googu euh, ci noonu nag ci la ko yàlla fayee mu nekkoon koo xam ne nii ku ñu nangu ak ñaanam la woon daanaka lu mësaana ñaan rek subhaanahu wa yàlla da koy nangu ñi ngi nettali ne xare bi nga xam ne nii Maba Jaxu Ba ci la daanoo ci la génne àdduna ginnaaw bi nga xamee ne ni siiwal nañ ne Maba de daanu na ci xare bi ñu toog ab diir gisuñu sëriñ bu soobee ñu bari jàpp ne moom tamit dafa daanu ci xare bi biñ demee ci soxna sawaale wax ko wax leen wax ko loolu dane euh, sëñ bu soobee desu fa ndax man sama nëb benn benn yëngal mënu ko kii ci ci gàttal daal moom xam naa ñaanoon na yàlla ñaan goo xam ne nii euh, ñaanoon na yàlla sëñ bu soobee dellu si te amoon na yaqin ne moom desu fa ci noonu nesuut ñu gis sëñ bu soobee euh, agsi ak aw fasam dara jotu ko nee sax daanaka yére yim soloon ay bal yu baree bari mi woon daanaka baliñ ko doon dóoru mais ci ci ci kaw la yem waaye euh, maanaam jàllul ci loolu kon loolu tamit day wane ne amoon na cër bu amoon ci suñ borom subhanahu wa taala ñu ngi wax ne bi mu demee bi nga xamee ni <coughs> mag dikkal na ko mu xaw a jëm mag daara daara ji xëy na yen bi àttanatu ko lool lool dafa séddale daara ji ci diggante doomam sëriñ bu soobee ak euh, doomam ñi nga xam ne ñoo bokk baay ñoom ñaata mooy sëriñ saa so sëriñ saa so mu mu féetalee ko njàngaleem alxuraan mi féetale bu buso bi njàngaleem xam-xam mi kon nga xam ne moom euh, ba léegi li gën a am solo ci moom rek moom mooy tasaare lislaam ci tasaare xam-xam wax nañ ne tamit maanaam euh, daanaka euh, askanu Mbàkke ak buso ñëpp ku ci mosoon a am ay jafe-jafe rek moom rek la xel yépp di dem daanaka ci moom la xel yépp di dem kilifa yépp muy góor ñi muy jigéen ci moom lañuy dellu mu fajal leen jafe-jafe yooyu nga xam ne nii moom lañ nekk te loolu dafa nekk lu am am solo ci lislaam euh, day dellu rek ci xadit bi ma doon wax léegi ci wuññi njàqare ak euh, ku nekk ci jafe-jafe nga génn ko ci waaye tam ci wàllu social ku ci jàmbaare woon la ku nekkoon nekkoon koo xam ne ni kuy dimbale maanaam nit ñi la Euh, ngir jëfee aaya bi nga xam ne nii moom la yàlla subhanahu wa taala di wax wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan da ngeen ni dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla waaye bu leen di dimbalante ci maanaam ci bàkkaar ak ci noono soxna Asta Walo dafa ni mu mokkale woon alquran déggee ko diine noonu la diggee woon aaya alquran yi xam nu koy utiliser waaye tam ci noonu noonu la ko doon jëfee ci domaine bu nekk Euh, ci ndimbalante googu tamit ci la yàlla subhanahu wa taala di wax maanaam ci wàllum saraxe innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masakin wal amilin alayha mooy bi nga xamee ni ci la doon tuddee ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yelloo jël azaka ak ñi nga xam ne ni ñoom ñoo euh, maanaam ñoom la ñu war a sarax te mooy néew néew ji doole yi ñi nga xam ne dañoo ñàkk ñi nga xam ne ni amuñu lu leen lu leen doy euh, wax nañ ne tamit moom soxna Asta Walo moom moo Euh, sos li ñu tuddee ay tukulóor ay tukulóor defe naa euh, buso buso yeeg mbàkke mbàkke xam nañ ko bu baax mooy chaque jour maanaam soxna jigéen dina togg chaque jour maanaam dina togg añ keneen togg reer wala mu togg reer keneen togg añ te loolu lim ci jublu woon mooy maanaam dafa wax ne njaboot war na fu mu toll euh, néegam am aw ñam woo xam ne dina ko garder nga xam ne fu njabootam soxlaa lekk rek dina dina am ñam bu mu leen jox kon loolu bokkoon na ci xelam mu rëy moo xam ne ni amoon na ko ba tax mu créé loolu noonu euh, wax nañ tamit Sëriñ Tuubaa radiallahu anhu ci ndigalam ci la taalifee xasidatu sindiidi te mooy sindiidi gu njëkk yàllaahu bil mustafa al mahbubi yàllaahu nga xam ne ni moom lañ def euh, changé waat mu nekk yàllaahu bil mustafa sindiidi yàllaahu comme xasida gi niñ ko xamee woon noonu waaye tam nekkoon na xam ne nii ku mënoon a waare la euh, yëmul woon rek ci jàngal leen nii nii di leen tëralal taalibe waaye itam da leen da cee boole woon di leen waar fu ñu toll di leen delloo ci suñ borom subhanahu wa taala te ku nekk xam na ne waar dafa am solo lool maanaam ndax jàng day mel ne booy jàng affaire ay théorie yoo xam ne ne xam-xam la lay jox waaye waar nag mooy euh, moom nga defee ci anam goo xam ne day dugg ci xol yi euh, te liñ naan day jugee ci xool te bu jógee ci xol day dugg ci xol mooy fàttali nit ñi delloo leen ci suñ borom subhaanahu wa taala fàttali leen màggaayug yàlla waaye fàttali leen néew dooleek doomu aadama waaye itam fàttali leen doye dik àdduna ak ak jeex jeex nga xam ne da koy jeex waaye itam fàttali leen maanaam rëy rëyaayug yowmal qiyaam ak ni nga xamee noonu lay noonu lay saxee maa indakum wa ma inda allahi baaq comme ni ko suñ borom waxee ci suratu naxl li nga xam ne ni moom ngeen am yéen day jeex waaye li nga xam ne moom lay yàlla am moom day des ak li mu wax ci suratu doxaane wala al axiratu xayrun laka min al ula euh, maanaam àdduna euh, daal moom moo la gën a alaaxira moom moo gën àdduna waaye tam noonu la leen doon maanaam euh, moytuloo seytaane ak ni nga xamee ni noonu lay sànk doomu aadama ak ni nga xam ne ni moom mooy noon di doomu aadama inna cheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwan kon ci gàttal loolu moo nekkoon di dunduk soxna jaara wax nañ ne bi mu faatu macha allah ku ku ku guddoon fan la bi mu faatu amoon na téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñaar bi mu faatoo sëriñ bu soobee doomam toog na foofu salum fukki at door faa jógee ñëw ñibbisi Mbàkke Bawal moo tax ci noonu ci la ñu utili ci la ñu sukkandiku rek ba mën a def euh, maanaam mën a à près at mi nga xam ne ni ci la gane àdduna ak at mi nga xam ne ni ci la faatu kon ci noonu mën nañoo wax ne mi ngi gane àdduna mille 1736 génn àdduna mille 1874 euh, kon euh, ñu jeexal ci tomb yi nga xam ne ni moom la ñuy jëriñoo moom la ñuy jàngate ci dundu soxna Awa Sow radiyallahu anha ci gàttal bokk na ci nga xam ne ku nekk war na ko cee roy rawatina soxna nga xër ci jaamu yàlla xeer ci sàkku xam-xam te bañ a yaafuus benn yoon ndax comme niñ ko waxee jaamu yàlla ak sàkku xam-xam góor ñi jigéen ñoo ci yem képp li ci yàlla digle ci lu baax ci ku ko def ak nim ci tëkkoo ci la koo xam ne ni defu ko ñoo ci yem képp ngi comme aay yi nga xam ne ni moom lañ waxoon léegi waaye itam yëg responsabilité bi nga xam ne ni moom nga am en tant que jullit rawatina julit bu jigéen ak rôle bu mag bi nga xam ne ni moom la war a jouer ci société bi waaye itam bokk na ci njariñ yi ñuy ñuy jëriñoo ci dundu soxna Asta Walo mooy nga tàmmal sa boppu joxe ak tabe ak dimbale ñi nga xam ne ni ñoo néew doole yi loolu euh, wax nañ ko sànq ci biir wax waaye itam li ñu tuddee jihaad euh, jihaadu jigéen nekkul ci jël maanaam jël jaasi wala paaka dem di di xare déedéet waaye mën na jihaatam mën na nekk ci sàkku xam-xam mën na nekk ci tasaare xam-xam comme ni ko soxna sawaal doon defee mën na nekk tamit ci li ñu tuddee jihaadu nafs te mooy xeex ak sa bakkan mën na nekk ci biir këram topp boroom këram ci lu neex yàlla euh, yar njaboot gi euh, def lépp loo xam ne ni day tax société bi jëm kanam comme euh, tomb ak tomb yu baree bari yoo xam ne ni bu dee jàng ci siira soxna Awa radiyallahu anha dañuy xam ne euh, dundam gépp ay leçon la dundam gépp ay njëriñ la dund gi buñ ko dee càmbar di ko jàngat bu baax a baax dinañ xam ne ni buñ ci euh, doxee rek roy ko ci bu baax a baax suñuy mbir dina jàkk suñ mbir dina defaru àdduna ak àllaaxira waaye dinañ bokk incha allahu rabbi ci jigéen ñi nga xam ne ni moom la yàlla tànn Euh, ci euh, te moom moom la doon wax di ko taggee sayyidatuna Maryam radiallahu anha ci jeexantalu surat euh, tahrim tam naan wa saddaqat bi kalimaati rabbiha wa kutubihi wala wa kitaabihi wa kaanat min alqaanitin moom mariam daal dëggaloon na kàddu suñ borom waaye bokkoon na ci jaamukati yàlla yi nga xam ne ni yàlla suñ borom subhanahu wa taala gërëm na leen kon euh, foofu la ñuy taxawandi euh, seen émission tey euh, di leen ñaanal subhanahu wa taala boole ñu dégg ak topp boole ñu ci gaa yi nga xam ne ni yastamiuna al qawla fa yattabiuna ahsana dañuy dégg wax jël la ca gën a rafet ñu jafe ko te may ñu ñu jaar ci tànki ñu baax ñi nga xam ne nii ñoom ñoo fi jaaroon rafetal seenu dund ba xëy wuy ji suñ borom subhanahu wa hada wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh بزار في الحسنات سيدات لمحسنات مريم فوقت مخينات عند الذي لم يدرك